wan dana fi yónnee enveloppe yónnee délégation fa tabarakallahu boole kàddu yu rafet yi ñecce des yépp di ay njabootit ñépp oustaz Cheikh tudd na leen ñoom ñëpp ñu jóge Tuuba te ni màggal toll ci ñoom noonu la gàmmu gi toll ci ñoom fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu nuyu leen sama mbokk mi sëriñ Modou Kara Mbakke yónni na ay doomam fa tabaarakallaahu feddali kóllëre gi ah kilifa yépp nag bu ñu bëggee di leen tuddaat dafay mel ni dafay jël waxtu wi ndax li ci amoon solo yëpp Oustaz Cheikh wax na ko xëy na du ñàkk bu ëllëgee incha allah ñu mënul ñàkk ñu jox leen kàddu gi ñu jox leen ñu wax ci turu délégation yi ñu représenté ah, sunu mbokk Seydi Mouhamadil Amin Kunta bu Njaasaan moom itam tabaarakallaahu yu wetu Mouhamad Mbacke Abdul ñoo mas di ànd ñu daan waxante boobu ak léegi mat na ñaar fukki at mu mel ni nag def di rekk lu mënul ñàkk waaye wolof mooy wax ni lu dul doy loo ca am doy na mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñépp daje fi muy fii di feneen moom nag ku doon wax ba àdduna bi tukki du tax nga jeexal li ko yàlla sédd mu mel ni itam ni ko capitaine waxe rekk daf di yëfu jàmbur maanaam sunu boroom léeg-léeg mu am nu mu waxee ca alquran bu la fekkul nga réfléchir sa fit dafay dem nga xam nga ni yàlla bu la nee ida shamsu kuwirat maa ngi jàkkaarloog bés bi nga xam ni ci lay déconnecté ci lay déconnecté jant bi bu ko defee nga danga nga naan waaw bu ñu déconnecté jant bi waaw fu leer di amati fekk booba danga xalaatul ni ki moom guddi gi mooy Shamsul Fadl waaw moom yonent bi mooy jantu ngëneel jantu ngëneel bu nga xam ni kenn du ko éclipsé te kenn du ko déconnecté ba ila nafxi fi suuf waaw bu fekkee ni yàlla def la wax ni itam planète yi dinañ leen masa désinstallé bés bu ko defee nga tiit waaw waaw bu ñu leen désinstallé ñun fu ñuy nekkati fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko Cheikh Al Hadj Malick si waxe wax ni waxuma moom waaye ñi mu am ñu di ay saxaabaab humu nujuumu li muqtadim bi samaihim waaw ay genre planet yoo xam ni asamaan sañu nekk du yàgg mukk ba ñu désinstallé ko waaw kon nag loolu dal dal na xel waaw bu ñaareel bi itam walla bu ñetteel bi mooy li yàlla wax ni di ngeen demi bés ba montagne yi yëpp ñu déboulonné leen waaw ñu leen déboulonné te ñoo téye planète bi kon bu ñu leen fi jëlee luy téye ci bu ko defee boo bëggee tiit te fekk yonent baa ngi ci sawet waxuma la moom mais alquran biñ ko jox rek law anzalna hada alquran ala jabal ala jabal la raaytahu xashaan mutasaddian min xashiyatillah waaw alquranam rek montagne attanu ko waaw lu montagne rëy rëy rëy bu ñu jàngee alquran mu yaru waaw bi ci des itam mooy bu la yàlla waxee ci alquran ni la géej yi dinañu bés dem bés ba ngàcc leen ndox dootu ci am boo bëggee tiit ndax ni kon bu boobaa fu ñuy jëlee ti ndawal waaw xam naa bu dee séeréer si waaw ñoom la ñuy xalaat ci géej gi rek mooy fu ñuy jëlee ti ndawal waaye fekk na bu fekkee nga am yonent bi sallallahu alayhi wa waxuma la géej waaye yi mu miin géej yi fii séenuñu leen waaw ndax qaatiun abxuran yaa an comme ni ko Maodo waxee ci xilaasu zahab yonent bi waxul géej yi mais dafa utilise jam'ul jam' waaw parce que buñ nee baxar jam'u bi mooy buxuur waaye buñ ab abxur nag mooy jam'ul jam' waa mu ni te yonent bi lu mat fukk ci géej yooyu bu ci ne fay na ko waaw waxuma la ni fay na ko waaye am na ay nitam ay awliya yuy wax ci seen audace ni xudna bihaaran waqafa al anbiyaau fi sawaxiliha waaw xuus nañu géej yu nga xam ni bañ koy xuus am na yonent yu taxaw ca tefes ya ñemewuñ ko xeet xuus waaw loolu doy na cër ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaw mu mel ni itam li sunu boroom wax mën nañu jël saar bi yëpp mais dañ ciy jël aspect yi gën a am solo war a gën a marqué nit waaw mooy li alquran di wax bis bu ñu demee ba jafal safara xoolal loolu ñu jafal safara sa fit di dem nga fàtte ni yonent bi sallallahu alayhi wa fi yadihi shafaatu shafiin waaw yonent bi ku mu ràmmuwul ëllëg kenn du la ràmm comme am nga ku la mën a ràmm à ce point nag loo fii tiit new fi waaw bu fekkee ni aljanna la yàlla di la wan nag ni laa bu boobaa aljanna bi ngeen doon seenu dana ko xëcc ba ba mu jege leen nga bëgg a kontaan tëb fekk danga nga ndax fekk na aljanna bi ñu lay wax yàgg na di yëkkat ndax dafa yàkkamti waa kër yonent bi ñëw pour dëkke ko qawmun ishtaqatil jinaanu ilayhim shawqahimin di mawaridi réyi waaw mu mel ni itam yàlla sunu mboroom mu ngi wax ci alquraanam bi ba tey di tudd bu ngeen demee ba guddi yooru yooru dootul ñëw suba biddanti dootul xëy bu boobaa ngeen bëgg a jaaxle fekk da ngeen xamul ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi bàyyi suba gi ndax moo tax mu leer moo fi bàyyi guddi gi moo tax mu lëndëm kon nag boo amee ku mel noonu bu yu mel nii amee li ñu amit yow jàppal ci moom rek ndax fa mu lay leerale ëpp na waaw looluy tax ñoom mag ñi dafay am benn complexité bu ñuy jaaxle mooy yàlla ñaari baat yi misliyaam ak masaliyaam buñ ne misliya laysa kamithlihi shay waaye nag bu dee mathaliya mathalu nuurihi kon mathaliya bi moom lañuy topp ndax mithliya bi amul waaw muy wane rek yonent beeg li mu ko sedd moom sunu boroom xeetu leer yooyu le mathalu nuurihi ka mishkaati fiha misbaax al misbaaxu fi zujaaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار nuurun ala nuur nga bëgg a xam naka la leer googu demee waxuma ko nag ci firi fuqaha yi ak mufassirina yi ma koy waxee ci cadre firi boroom xaqiqa yi ñoom dañu gis ni pour nga comprendre yonent bi ni mu représenté leeru yàlla noonu mu tuddee baatam yooyu ci alquran mishkaat bi mooy Seydina Abu Bakr waaw misbaax bi mooy Seydina Umar zujaaja bi mooy Seydina Uthman Seydina Ali mooy kawkab durri bi kawkab durri boo xam ni yuqadu min shajaratin mubaraka mais shajara mubaraka bi kan la ñu ne mooy fatimatu bintu rasul waaw zeytunatin maanaam soxlawul énergie renouvelable parce que zaytunatin looloo tax la charqiyatin wala garbiya soxlawul fu muy fenke soxlawul fu muy sowe jant baa ngi nii mënul xëy xëy éclairer planète bi d'un seul coup moo tax fu mu fenke boo laajtee ñu ni la sona de l'autre côté mais bu dee leeru yonent bi nag amul fu muy fenke amul fu muy sowe la charqiyatin wala garbiya waaw moo tax yekkaadu zaytuha nag yuddi walaw lam tamsashu naar maanaa kibrit newu fa pour di ko jafal ndax mooy jafal boppam waaw bu ko defee kon boo toppee démarche boobu xëy na dinañ ci am sax beneen jàng xëy na bu boobaa ma laaj ko sama capitaine bi ci baatu checkpoint xëy na ñu ñëw ci suba bu ko temps bi laajee maana ni ko mag ñi di firee ci seen xaqiqa marajal baxarayn yaltaqiyaani baynahuma barzaxun la yabgiyaan waaw xëy na ñu koy firi ñoom mu fassiru nay géej yi rekk lañ koy firee diggante géej ak dex ñu ni dinañu dend te duñu laalante la fa yàlla jaarale ba duñu laalante moo jara xalaat te ku dem ndar di nga ci xam dara waaw waaye ñoom itam ci seen déggin ñu ne albaxarayn mooy fatimatu bintu rasul ak aliyu bnu abi talib ñoom ñaar ñooy bahrayni baynahuma barza muy yonent bi loolu tax la yabgiyaani waaw kenn ku ci ne ak leeram ak leeru ka ca des bu ñu leen bàyyi woon ñu jaxasoo kenn du ko àttan mais yonent bee dox ci diggante bi moo tax baatu check point bi foofu nga koy dégge mais dinañ ci ñëwaat xañ na bu ñu ko capitaine maye li ma ci jote a jàng ci seen euh, check point bu mujj bi waaw mu mel ni kon ci waxtaan yi passé woon li góor gi di wax ni nee na taawil lu am solo la ndax mën na tax nit yegg ci yàlla waaye it mën na tax nit sore yàlla moom taawil mu ni te ñetti tawil yi nga xam ni jàpp nañ ko ci wàllu taarix benn bi bu yonent yàlla aadam la bu ñaareel bi mooy bu iblis bu ñetteel bi mooy bu isxariolote yi ñu di ko wax Judas Iscariote bu dee bu aadam yàlla ci la dëgg pour baal ko ndax njort ko lal yàlla def ko ni lu tax nga def li nga def mu ni ko am lu ma foog rekk